voilà loolu lu ma ci mën a wax mooy euh, euh, vous savez que libération Ousmane Sonko comme lu may wax rek man je je dis pas que bu ñu ko libere ou bien nañ ko libérer mais vous que la justice moom dañu euh, bàyyi mu def liggéeyam man loolu laa gis liggéey justice bi dogal na il est en prison nañu bàyyi justice bi liberté justice bi su demee ba xam ne tel période lañ ko war a bàyyi c'est pas ay ñaan mooy tax ñu bàyyi Ousmane Sonko nañu waxante dëgg. nañu waxante dëgg. du ñaan ci njekk. non xam nga justice amul ñaan ci njekk nañu waxante dëgg y a des infractions yu fi jaar yu bëri yu fi jaar du ay ñaan fee sortie de de ces femmes euh, ay jabaram tout ça génn je pense que waruloon am sax surtout la sortie de ces femmes là. seetaan nga ko. seetaan naa ko en direct. mais est-ce que arrêté bi waroon na am. arrêté arrêté bi ñu ko arrêté waroon na am. Euh, kii kii. suñ jaaraloon lépp ci yoon. lépp jaar na ci yoon. lu fi xew yépp nit ñépp gis nañ ko amul benn dëkk bu mun a tolérer lu fi jaar te ay yàqu-yàqu am ko ci ay benn nit. amul benn amul benn dëkk buy teg nit loolu. Eh, ki Kajoor. waaw dañuy wante tu sais que man du ma ragal a musa wax dëgg. chaque jour man si yaa ngi yaa ngi yaa ngi sama ligne de conduite fu ma nekk foofu laa nekk wax ne nekkoo di wax dëgg mais yaa ngi yaa ngi jaar na ne. non non non mais def xaw ma. mais pour amul benn raccourci. Kajoor nañu wax si dëgg.